dali nay jàmm ñu ànd xëy yër yéene kaa ñu xëyandoo yéene kaay gi di réew mi quotidien xëy séq waxtaan wu yaatu ak rappeur bii di Dip Doundou Guiss turam dëgg di Dominique Prera daat nay wax ci carrière wax na ci succès bi nga xamante ni am na ko ak nan la koy gérer wax na ci audience bi nga xam ne séq na ko ak njiitu réew mi di président Macky Sall wax na ndorteelam ci lu jëm ci wàllum rap bi wax na ci jaaram ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ci fac droit wax na ci lan moo tax ñu koy woowee président des rappeurs wax na ci covid bi ak jafe yi nga xamante ni mi andil nag ñi nga xam ne ñooy rappeurs yi ñoom nee ñu sonn nañ bu baax a baax ci li nga xam ne maanaam mooy covid 19 bi li mu leen yàqal daat nay bare waaye nag moom dib dund gis lu bare bari ci ay ndimbal def na ko ci fi nga xam ne maanaam mooy Grand Yoff ñu bari nag nee na dañoo jàpp ne bi ko njiitu réew mi di président Macky Sall dalalee def ko jox ab xaalis moom dib dund gis daan na koy leeral nee na amul lenn loo xam ne maanaam jox nañ ko ko ni ab xaalis maanaam kero ba génn pale te nee na xaalisu pale du ko mosa laal ci àdduna moom dib dund gis xam ñooy wax ne ab franc-maçon la waxtaan wu yaato yaatu la séq ak waa réew mi ko di cee ministre Aly Ngouille mi ñu dénk kaaraange réew mi ni ki démb ginnaaw digg bëccëg gi doon na janoo ak taskatu xabaar yi wax na ci jàngoro jekk law gi nga xam ne ma ngi law ci réew mi ak bàyyeeko gi nga xam ne askanu Sénégal ñoo ngi koy bàyyeeko waaye nag daan nay tere lépp loo xamante ni jëm na ci ay rassemblement wax askanu Sénégal ñu daal di takk masque yi fas yéene wàcc nag ñi nga xam ne maanaam ñooy takk der yi ngir nag askan wi takk masque képp koo xamante ni yaa nga ci yéen bërëb yi tëkkoo ay masque maanaam yoon mën naa dal sa kaw wala képp koo xam ne yaa ngi organiser ay ndaje yéen a kaay gii de la Quotidien ñu xëy fekk fa Birahim Seck la mu xam leen nee na suñu waxantee dëgg maanaam état bu Sénégal dafa lajj lool lool ci li nga xam ne maanaam moom mooy Covid bi te loolee nag daf ko waroon a maanaam wax si njekk ak teraanga askanu Sénégal Aly Ngouille Ndiaye moom nag la mu xam ne ni ki démb ba muy janoog taskatu xabaar yi nee na ñi nga xam ne maanaam ñooy ndaw yi ñooy jël nag jàngoroy coronavirus ji yóbbu ko seen kër yi maanaam daal di kay wàll mag ñi ndax ñi ëpp si ñuy faatu maanaam troisième as la yéen gii di libération Libération mu xëy di ñu xamal naan ñu woppi coronavirus ma ngi gën di law ci réewum Sénégal ndax ñaari fan rek lu toll ci téeméeri nit am nañu doomu jàngoro ji Aly Ngouille Ndiaye nee na bi jamono ji ma ngi circulé bu baax a baax te tànk yu mag a mag lay dox 24 heures mu ñu xamal naan ñu jamono ji daal mën nañoo wax ne tâtonnement bu rëy moo am jamono ji ci ñi nga xam ne maanaam ñoom lañ dénk nguur gi yéen a kaay gii di Dakar Times Aly Ngouille Ndiaye la mu xamle nee na nga xamante ni ay mesure la état xam ne maanaam respecté woo ko yoon dina daal a kaay xamal ñu cas yi ñoo ngi explosé ndax ni ki démb lu toll si juróom-ñett fukk ak ñaar ci ay cas communautaire daal nañu koy nemmeekoo am na fukk ak benn cas communautaire ci Saint-Louis yéen kaay gi di Sud Quotidien mu ñu xamal lañu ni ki démb ba ministre de l'intérieur di janoo ak taskatu xabaar yi daal wax fi nga xam ne fi la jàngoro ji ëppee wax Dakar wax na Thiès wax na Diourbel wax na Ziguinchor waaye nag nee na mbir mi daal fi mu wullee ñaay mooy fii ci gi di Libération mu xëy di ñu xamal nañu woppi coronavirus ma ngi gën di teg ci ay million maanaam ame nañu doomu jàngoro ji ba mu commencé ba léegi lu toll si juróom-ñaari téeméer ci ay junni maanaam faatu nañ ci loolu lépp bu ñu ko boolee ci àdduna bi njiitu réew mi di président Macky Sall moom nag daat nay song ñi nga xam ne ñooy taskatu xabaar yi ne ñooy tiital askan wi ci lu jëm ci woppi coronavirus ñi nga xam ne ñooy taskatu xabaar yi ñoom tima maanaam daat nañu koy tontu nee nañu leneen la ñu doon xaar ci Macky Sall ba des maanaam mu leen di joxar bi baaraamu tuuma ndax lenn loo xamante ni presse bi daan na ko fi inventé presse bi susul dara li nga xamante ni moom la waa ministère de la sant santé di wax loole la presse bi di jottali askan wi te nag ñi nga xam ne ñooy taskatu xabaar yi naam ñoo ngi dund ay jafe-jafe waaye nag seen liggéey maanaam ñoo ngi koy mataleen yéen a kaay gii de Les Échos keroog bi ñu ko yàqee Macky waroon na cee wax wala mu ñaawlu ko wala sax am ministre daal déplacé wu dem na daal da koy naqarlu waaye nag amul benn ministre boo xam ne maanaam déplacé wu na ca loolee ci la Macky Sall waroon a wax yéen a kaay gii de Libération daal di wax ne ñi nga xam ne ñooy yàqoon yéen a kaay gii de Les Échos toll si juróom benn ci ay nit niki démb yóbbu nañ leen sa kasu ba li nga xam ne moom lañ leen di toppee maanaam association de malfaiteurs maanaam ànd àndub samb surabali yàq lu jàmbur loole lañ leen di toppee te mën nañoo tëdd lu toll ci fukk jàpp ñaar fukki at ci biir kasu bi ñooñee nga xam ne dañ leen di joxar bi baaraamu tuuma ne ay taalibey sëriñ Moustapha Sy lañ la ñu xamle maanaam ca section de recherche nee nañu li ñu def les échos maanaam loolee avertissement kese la maanaam dànkaafu la yéen a kaay gi di réew mi ko du xëy na ci explosion bi nga xam ne am na sa Liban maanaam lu toll si téeméer ak fanweer ak ñaar ci ay nit daan nañu si faatu am na juróomi junni ci ay nit yoo xam ne am nañu ci ay gaañ gaañu-gaañu enquête bi ba léegi ni jeexagul waaye nag bi dikk na ana lan moo waral boobale catastrophe stade yéen a kaay ñu xamal ñu ligue des champions niki démb Juventus de Turin ak Real Madrid éliminé nañ leen tey ji nag Naples bu Kalidou Koulibaly dina dalal FC Barcelone journal bi wax na tamit ci match bi nga xam ne moo war a dox diggante Bayern ak Chelsea yéen a gi di sunu làmb xëy ñu xamal ñu ligue Nicolas daat nay wax a na Gueye ak Reug Reug seenu tey jii la ñu koy finaliser